bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ci seen actu du jour bés bi ci la chaine chaîne leader Mak yi dañu koy dooree ci ginnaaw bi préfet bu Mbàkke tere li di meeting bi fa waroon am ca boulevard Ndoyeen waaye ñu mujjee koo amal dégâts yi fa am kii di président Macky Sall wax na ci ci réunion bu mu amaloon 3 heures du matin jàpp 5 heures du matin ca Thiès ak responsable benn Bokk Yaakaar yi président Macky Sall wax na ni du def benn arrangement ci stabilité dëkk boobule di Mbàkke ginnaaw dégâts yi fa amoon bàyyi kenn muy yàq dëkk bi te di fàttali responsable yu état ci sécurité wu nit ñi euh, nit yi ak seen ay biens di xamal acteurs politiques yi ñu tëral ay seen ay programme ak seen ay activité ci nu mu leen neexee waaye nag ci respecter loi ak règlement ndax loolu kenn du ko négocier. ginnaaw bi CNRA daggee seen signal groupe de presse bii di Walf TV loolu nag jural leen ay avantage ndax groupe de presse bii di Walf TV mujje nañu am ci digital bi ay abonné yoo xamante ni mosuñu ko am ci deux mois wala ci un mois am nañ jamono yi lu toll ci cinq mille abonné ci lu matul 15 heures lu ñu mënul woon am ci un mois patron de patron de presse bi ci Front de Terre di xam la ni audience Walf am na lu toll ci 2,5 millions ci lu matul 24 heures ci fàttali nag signal Walf TV dañu ko coupé woon vendredi passé pour une semaine ndax li ñu diffusé woon en direct violence bi amoon ca Mbàkke ci visite Ousmane Sonko militant wu Pastef yi doon ci jàmmarloo ak euh, takk der yi kii di maître El Hadji ci kanamu conseil de vingt 28 février bi di ñëw ginnaaw bi ñu ko suspendre di passé ci ndigalu avocat yi ci Sénégal yépp dinañu ko auditionné 28 février prochain dina jàkkaarloo ak conseil de discipline moom ak 19 personnes yu bokk ci moom ak bâtonnier bii di maître du Seck dina ànd ak ay avocat am ngir ñu mën ko assurer défense bi la fay tukkee nag dinañu ko xam bés boobule. ba tey ci xibaar yi ñu wax ci mbirum kii di Gabriel kan ginnaaw bi mu ñibbisee États-Unis moom Gabriel kan nag euh, laaj nañu ko ci mbirum aji Sarr di affaire Sweet Beauté moom mi ngi xamle ni aji Sarr dëkkatul ci këram waaye nag mi ngi continuer di ko soutenir wax na tamit ci dernière sortie wu kii di président Ousmane Sonko di xamle ni moom Ousmane Sonko citoyen la comme ñëpp am na droit def ay sortem te du homme d'état donc police amul benn droit di déployer président Ousmane Sonko war na génn dafay soxteem moom Gabrielle Kane loolu la xamle ginnaaw bi ñu ko doon euh, laaj ci mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr ak euh, li fi jot xew jamono bi ñu génn. dañu koy jeexalee ci enquête présumée ci fraude fiscale ak branchement Copar Express journal bi di ñu xamal ne élément wu sûreté urbaine wàcc nañu ca siège Copar Express ñi leen di toppee fraude fiscale ak lii di blanchiment ginnaaw bi ñu jàppee kii di annibal Djim di activiste moom mi doon utiliser plateforme boobu di ci gérer xaalis ngir jàppale nit yi nga xam ne ñoo ko soxla waa Copar Express nag ñi ngi assurer seen ay partenaires ak ñi utiliser seen ay euh, plateforme te di xam ne ni ñoom laalewuñu benn yoon ci fraude ak blanchiment bu mu mënti doon te it euh, seen ay transaction xaalis dañu koy sécurisé mbokk yi foofu la yem ak yéen ci actu du jour bés bi ci la chaîne leader Mak TV ma leen bàyyi leen ak programme Mak TV jaa ngeen jëf.